mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ñu ngi leen di nuyu baax te di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadou di ñaan suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko waaye di siyaar baax tey ñaanal liggéeyaa konam ba borom pas-pas bu rëy ba borom jaayante di Serigne moom sëñ Modou Mbenda di ñaan suñu borom yàggal ko lool te wéral ko mbokk yi tey la ñetti fan ci weeru koor comme ñu ko baaxoo defee ci mbooleem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp tey nag ñu ñëw fii ci Paaleen taxaw fii nga xamante ni mooy euh, kër Serigne Mor Talla ñaanal baax ki nga xam ne moo ko fi toogal di Serigne Abdou Fall Roqe moom sëñ Mor Talla Fall suñ borom yàggal ko loolu te ko ak mbooleem njaboot gi njabootu sëñ Mor Talla gi yëpp eh, dinañ fas yéene eh, ànd ak yéen mboolem weeru koor gi lépp loo xamante nii noonu la Baye Fall yi di dundee weeru koor wi ñu fas yéene koo ànd ak yéen dara du ci rëcc dinañ dem ci ki nga xamante ni mooy sëriñ bi eh, ki nga xam ne moo ko yëkkati kàddu waaye dinañ dem tamit ci ñi nga xam ne ñoo ñoo jiite waañ bi di ci liggéey liggéey bu am solo mooy soxna yi kon noonu la ñuy fas yéene ànd ak yéen rek dugg ci biir xool liggéey bi incha allah rabbi ñëwaat. mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek euh, boobu ba léegi ñu ngi ci biir kër sëñ Mor Talla fii ci waañ bi. ñu togg ak badjen Ndiaye Fall mom sëñ Mortala Fall diko ñaanal bax badjen nga yàgg fi loolu te euh badjen nga jité wañ bi jité soxna yi nan ngeen taxawé ci wañ bi ak organisation bi euh, bi ndog yi ba légui ak fi nga xamanteni fi ngeen tay wa assalamu alaykum ñoo ngi sant di gërëm tay ñaan mu yàgg lol te andu ko wer barké mam Cheikh ibrahim ndog yi dañu ngi ci fasiyene yéene liggéeyal Cheikh Mor Fall rek ci barkeb Cheikh Abdou Fall ah jigen ñi nak jambar lu lol ñom wax deug yalla ñi ngi ci liñ leen digal te gisunu ci gisunu luñ leen di téré luñu man ñi ngi koy gor niñ ko bëgge dal ñi ngi koy ni doxale waaw niñ ko bëgge ni lañ koy défé ñi ngi leen di sante di leen ñaanal ñu teewe ko ay déwéni déwén ci barkeb sëñ Touba ak Cheikh Ibra barkeb seex Mor Fall waaw. Badiane euh, ñu ngi chaque année ndog yi day gën a yokk liggéey bi day gën a yokk nit ñi dañuy gën a amaat passif rawatina soxna yi ndax liggéey bi yëpp soxna yi ñoo ko yor. loolu nag de moom Cheikh Ibra Cheikh Ibra la Cheikh Ibra moom amul tànki gannaaw tànki kanam la am ah te itam ki ñuy defal moom ku koy defal rek sawar ca ndax moom da ko ànd ak ñun kon lépp lu la di def loo te ànd koog yow gën la ko bëgg noo mën a def sawar ca nag waaw ah, te sëñ Abdou nag <laughs> ak rakkam yi daa mel ni moom ak njaboot gi ñoo lii ñuy def lu sax ñoo ñu ko gën a bëgg ba luñ ci man nag ñu ngi ko ciy góorgóorlu waaw niñ ko bëggee daal ñu ngi ñu ngi koy def wax dëgg yàlla. daanaka moom du ma leen kii sax boo boo boo leen seetee benn yoon sax ni leen a ah, na gën a ñor bu keroogee dañ la naan bàjjen yow bul jógati bul dikkati ni nga bëgg rek <laughs> ni lay demee. <laughs> bàjjen eh, nga fekk eh, nga fekkee bañ bañ dalee togg ndogo yi ci jamonoy Sëñ Mor Talla ak léegi ban jàngat nga ñuy defar <laughs> jamonoy sëñ Mor nag man daa mel ni dama cee gën a ndawe nag. Ah. xam yu ma sëñ Mor. am na loo am na loo fekke loo xam ne ci waañ bi jamono yi ñu koy tàmbalee togg am na loo ci fekke ci señ Mor Tall waaw ah, booba tuut tànk la li ko jiitu ki ko nga xamante ni moo ko njëkk wutu nan la ko daan toggee. xanaa sëñ Aliou Fall ba woon nii ñu koy defee rek waaw ndax moom ñun ñëpp njaboot gi moom moom ci moom lañ ne woon te nii ñu koy defee rek lañ ko daa defee dafa yokk nag fi mu ne waaw dafa ni moom monsieur Soutier Diop waaw bu xasee yegg daal moom lépp loo mën a am rek danga ko ciy def ah noonu daal lañ ko daan defee waaw ci ci yi daal. ba léegi rek ñoo ngi ci euh, waañ bi gis ngeen soxna yi ñu ngi ci cin yi euh, mel na ne léegi tey ndog yi pare ñu mën koo yóbbu ci ki fi nekkal euh, Serigne Touba ñu toog ak Yandé Ndiaye nga bokk ci ñu jiite waañ bi bokk ñu jiite cin yi bi ngeen xëyee ak kañ ngeen di xëy. ak bu ngeen xeye ci lan ngeen di nek ba heure bi alaykum wa rahmatulah taala wa barakaatu no ngi nuyu mbolo mi di sante yalla ak yonenti bi seigne touba mam Serap di ñaanu seigne takka mbak mu yàgg lool ti wër ñaanu seigne dudo Abdou fal mu yàgg lool ti wër ak seigne Abdou Sini fal mu sunu jëwriñ ñaanal njaboot ak Baye Taal ak Baye Cheikh Lo yep jam xana buñ xeye de moom rek fi la ni ndékkee si bu neexee yàlla nekk ci liggey bi rek ba liggey bi yegg ni nit fi la ni yenn ba jant sax liggéey bi yegg rek lañu mën delloowaat suñu kër fas yéene ko defar ba mu baax ma di ko sëñ bi bëggee rek mu mel ni ñu jébali ko sëñ Muntaxa waaw maam Serap Fall mooy liggéeyloo moom la ñuy toggal ndogu di ko yët sëñ Muntaxa Mbàkke sëñ Tuubaa waaw fas yéene muy baax lool di murite lool di mel ni ko borom bëgg loolu daal lañ ci bëgg te moom la fas yéene noonu la ko daan defee at mu jot moom la ko defee ren di soba soobee yàlla. kon daal bu ngeen xëyee ban nag yeeg yëpp jàppandi euh, soble si ngeen di tàmbalee ak mbollem lo xamante jeri jëm ci ndox mun xëyee bu ñëwee rot la ñu njëkk def raxa suñu ci tek xolli suñu soble fédjar xolli pomme de terre defar bam baax bu taal joté ñu taal mun naa la ñuy def togg bam soti ñu yak yóbbu ci wana daal di ñibbi suñuy kër tok ba subaati ñu koy ci waat waaw man dal ko koy dox ñu gis ne bi ngeen bu ngeen ni ñëw da ngeen ni solu ba bam bam rafet sol sen déguisement yi ñëpp Euh, melne am togg kon melne na ne bala ko def dafa am loy njëkk waajal ci ci sa jëm. togg boo koy def da nga wara sel sa jëm set raxas say da bam set wa togg mom sel la ci baax ak neex set wa rap morité noonu dalam koy doxale fan ngeen toll. suñ toll fi ne ni ñu ngi rosi tal nañ bay rosi ñu saaf pombe te wa mom da lay def musal nañ te suba ñu xey musal bu ñu tal saaf sun pombe te rosi ndawal géeg yëpp togg ba mu baax loolu daal la ñuy def ba mu rite noonu daal la ñuy def. Fala ilaha illallah. Fala ilaha illallah. mbokk yi comme ni leen ko waxe won ci bobu ba léegi rek ñoo ngi ci kër Serigne Mortala di ñaanal baax ki nga xam mo tok toog Serigne Mortala Serigne Abdou Fall suñ borom yàggal ko lol te wéré ko ak mbolam njabot suñ Mortala Fall gep comme niko njabotu mam Serigne Fall gep diko ko ci wéru koor gi ñu ñëw fi na ngir fassiyene waxtaan ak sëriñ Mbacke Ndiaye mi nga xam ne sëriñ bi moo ko jox kàddu ngir mu yëkkati ci kàddu sëriñ bi kàddu njaboot gi lu jëm ci liggéey bi nga xam ne seen waajur bu baax wa sëñ Mortalla moo fi bàyyi woon euh, ñu di ko doxal ba mu agsi fii sëñ Mbacke euh, ñu ngi lay nuyu baax di la di fas yéene yëkkati kàddu rek jëm ci euh, Ablaye. waaw sëriñ Ablaye jërëjëfati waaw waaw wax nga sëriñ Ablaye jërëjëfati ñu ngi lay nuy lu baax di la sant bu baax di la gërëm bu baax. di la xamal ne sëriñ bi moom bi nga dikkee fi moom muy ëttub sëñ mootaala li nga xam ne moom lay jëkk a yóbbante am nuyoo mooy kilifaam sëriñ am di Mbenda mi ngi koy nuyu mi ngi ko siyaare te xam ni fii mu toog moom la fi toogal ndax ëttu maam Cheikh Ibra Fall benn ëtt la te sëriñ Amdi Moodu Mbenda moo fi nekk nekkal fi Cheikh Ibra moom nag bu nekkee fii nekk fi sëriñ mootaala day liggéey boo xam ni bu yàgg lool la ndax bi ko maam Cheikh Ibra Fall joxe ndigal jox ko xaadimul Moustapha ñu di ko liggéey bi nga xamee ni dem nañu ba maam Cheikh Ibra Fall nekkatu fi sëñ Mor Talla dafay nekk nekkam fekk sëriñam magam Cheikh Moustapha Fall muy toggi ndogu kon loola ndogu yi yàgg na ci kër sëñ Mor Talla loola it ba tey mooy li nekk waaye loola it nag sëñ Mor Talla daa def di ko defal ay kilifaam nii la ko sëñ Abdou di ko def di ko defal ay kilifaam ki fi nekk nekkal fi Cheikh Ibra moom lay liggéey liggéey bi kër gi nag dafa yaatu yaatu goo xam ni moo war a fenn fu nekk di léggéey waaye benn benn rek a fi nekk mu ngi ñaan sëriñ Amdi yàgg fi bu baax suñ kilifa gi nga xam ne moo fi nekk nekkal fi sëriñ Touba it sëriñ mu yàgg fi lool ba liggéey bii nga xam ne moom lay liggéeyal ku baax ki sëriñ Touba euh, mu def ko na ko bëggee tan ànd kook moom loole ñoo ngi ciy rafetlu bu baax a baax kër gii nag di kër Cheikh di kër sëñ Mortalla ak kër sëñ Aliou Fall genn kër la ndax ñoo bokk soxna fa Diop Sayar ñoo ànd liggéey bi di ko liggéey waaye li ci sëriñ bi bëgg daal mooy soññi boppam soññi taalibe yi ñu góor góorgóorlu ci jëfe ndigal tey mooy yu ay tere xam na ni nag kër gii di kër sëñ Mootaala la ku baax ki fàgguloon sëñ Mootaala loola moo nekk ci kër sëñ Mootaala ndax sëñ du jataay bi mu toog koo ko gis doo wax ni kii mooy sëriñ bi dara wëralu ko lu may wàcce boppam ak defub taalibe loola nag li mu nekk ca la njabootu sëñ mootaal ak yëpp nekk ndax sëñ Abdourahmane ko ko gis doo wax ni kii sëtub sëriñ Tuubaa la doo wax ni kii sëtub Cheikh Ibra Fall la sëriñ euh, Abdou Sakkur ba tey rakkam noonu ñi fi nekk daal nekkal fi sëñ mootaal daal ay taalibe rek lañu fas yéene doon liggéey bi nag mu ngi ci soññ képp ku mu bokkal yaakaar sëñ mootaal la ñu dolli ci góorgóorlu lu baax ndax weeru bi bis buñ ko tàmbalee ba kera mu yegg waxtu wu ne ñiy woor ngi woor waaye ñun ñiy togg ndogg ñoo ngi togg ndogg ki jëfoon ak ki jëfagul ñëpp sëriñ baa ngi leen di soññi te loolu lépp lu mu ci jublu mooy dabu ngërëmal sëriñ bi rek te bëgg njaboot gi jariñu ndax ndigal rek mooy jariñ te loolu lañ fi fekkoon te ci lañu ñu fas yéene dund bu baax a baax kon sëriñ Ablaye sëriñ baa ngi lay sant te dile la gërëm li ñu waxee kàddu sëriñ bi rek la ñu waxee jërëjëfati waaw ñu gis ne sëriñ bi yokk na liggéey bi bu baax a baax. waaw loolu de moom yokk na bu baax ndax mbirum sëriñ bi moom tànki kanam la am waaye te amul tànki gannaaw gannaaw ah, tànki kanam la am te amul tànki gannaaw loola moom fas nañu yéene waxtu wu ne euh, la la lañ doon def ñëpp gis ni yokk na ci yoon wi euh, loola moom baaxu sëriñ bi rek. Euh, li li seen waajur yi bàyyi noonu daal yokk nañ ko bu baax a baax yokk googee nag ca la ñu fas yéene soññi teel bi yëpp ñu ànd ak ñoom ci liggéey boobu mu gën a jëm kanam bu baax loolu rek moo la ci nekk. ni nga ko waxee njabootug euh, Serigne Mor Talla ak njabootug euh, Serigne Alioune Fall Mbawar benn njaboot la. waaw ñu ñu gis ko sax ci bu ñuy yóbbu ndog yi ndoo bi ak mbooloo mi ni ñuy nekkee benn doo leen xàmme. Mm, dëgg la loolu moom dañoo bokk soxna Fatou Diop Sarr bokk maam Cheikh Ibra Fall ah, njabootu maam Cheikh Ibra Fall yëpp nag benn la rawatina na kër gi ñu bokk nekk te loolu day ndigal loo xam ne nii dañ ko fa fekkoon ci sëriñ Fallilu ba ci sëriñ Abdoulaat ñu boole woon leen boole googee ñu leen boole woon ñoom nañ fas yéene dund ba kër ñu fi bàyyi ko loolu rek mooy la ci nekk yàlla na sa borom yàggal leen fi baax waaw loolu rek moom mooy la ci nekk jërëjëfati suñ xol seet bi lại là Allah. comme ni ngeen ko gisee ci suba ak léegi gis ngeen fi ñu leen jaaral yëpp dem nañ fa la nga xamante ni mooy kër Serigne Mor Talla Fall euh, waxtaan ak euh, ki nga xamante ni mooy jiite euh, ndogo yi waaye ki nga xamante ni moo ne ci. Euh, waañ bi waaye ki nga xamante ni moom la sëriñ bi jox kàddu ngir ñu waxtaan ak moom ci lu jëm ci ndogo yi eh, gis ngeen kàddu yi nga xam ne jëm na fa euh, waañ wa dem nañ fa eh, dem nañ fa ngeen xamante ni mooy kër sëriñ Cheikh Fall Mbawar eh, gis ngeen nga xam ne jug na fa euh, ñoom kër sëriñ Cheikh Fall Mbawar ak kër sëriñ Mortala dañuy benn ndax soxna Faat Diop Saer moo jur sëriñ Mortala waaye soxna Faat Diop Saer moo jur ki ñuy wax sëriñ Aliou Fall Mbawar loolu moo waral ñoom seen i ndogu Eh, ci dañuy àndandoo andindoo andindoo ko fii nga xamante ni mooy résidence ci kër Serigne Touba gis ngeen bo mbooloo mi eh, waa Daaru Xafoor léegi lañ agsi ak mbooleem rek eh, koo xamante ni rek ak Baye Fall nga te tënku ci ndigalul maam Cheikh Ibrahima Fall warteef la ci yow. chaque weeru koor nga togg ndogu indil ko ki fi nekkal Serigne Touba noonu lañu àndeek euh, waa kër Serigne Mortala ak waa kër Serigne Aliou Fall Mbawar ñëw fii ci résidence ngir ñu jébbale seenub liggéey noonu lañ koy toppee durant weeru koor gi di jeex ànd ak yéen ak ci mbooleem buntu kër yi dara du leen cër ci incha allahu rabbi ñu dem ak Serigne bi bàyyi leen ak sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah